2020 ma ngay dem ay simili néew rek dox suñu digganteeg discours à la nation bi nga xamee ne président Macky Sall war na koo amal askan wi nag di ko xaar ci ay ponk yu bëri lu jëm ci wàllum liggéey bi lu ci mel ne wàllum mbay meeg napp gi. sama classe gi sonnoon lool kon nañu président dimbale na wax ci foofu jàppale ñu nu ñu dimbalee ba lépp jàppandi yomb ñu mën a liggéey liggéey bi dox. ñi ngi xaar aussi euh, campagne agricole bi tamit bëgg nañ tamit président gis nañ agriculture yi agriculteurs yi ah, gis nañ euh, producteur yi ak chinois yi jamono ji

njabootam kon kooku moo koy gën a di ko def bu dee lu jëm ci wàllum njàng mi sëriñ bi di xam leen tamit ñoo ngi koy xaar tamit ci éducation sexuelle boobee nga xam ne ne dañ ko yëkkati ne war nañ ko jàngale tamit ci l'école yi li ñu xaar ci discours président de la république na ci euh, revendication yi ñu ci bokk na ci wàllum njàng njàngale mi dégg nañ fan yi li nga xam ni moom moo ci xew mooy wàllum éducation sexuelle bi ñu ni boo xam nañ ko ciy dugal wala duñ ko ci dugal te gisoon nañ ministre bi sax bu ma jumut Mamadou Talla mu joxe woon ci opinion am donc tamit ñi ngi xaaraat tamit opinion président de la république tamit lan la ci wax. sëriñ bi moom dikkaat ci ñàkkum xëy mi nga xamee ne ndaw ñi ñàkk nañ ko xëy tey ñaan tamit tamit loolu président Macky Sall man leen cee jàppale ngir taxawu ndaw ñi. bu ñu doon xool le fait le plus marquant ci année deux mille deux mille vingt bi à part le Covid moi je dis le Covid. à part le Covid mën nañ koo wax immigration clandestine bi boo xoolee officiellement sax quatre cent et quelques personnes la ñu wax ne ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan ci maire bi ñoo xam ne dañu demoon Euh, aw ci yoonu géej gi ngir dem wuti ji liñ suturloo. atum nekk at moo xam si ne bëri na ay jafe-jafe ngir Covid 19 bi nga xamee ne jaar na fi ba baare lu bëri waaye atum 2021 bii nag ñuy dëgmal ñuy ñaan nag suñu boroom def ko muy atum jàmm ak xéewal waaye tamit di ñaan président Macky Sall ngir di indi ay xalaatam yu rafet yoo xam si ne mën naa saafara jafe-jafe yi nga xam si ne moom la ñuy jànkonteel.